maîtriser wu. nañu nañu gën a dolli sutura si nañu gën a dolli kaddu yi rafet yi nañu gën a dolli kaddu yi sell yi loolu la Aby Ndour wax. mais waaye waaye dafa am dafa dafa am ñett yu. Uh-huh. Euh, Seynabou Ndour. dafa am ñett yu ma bëgg a wax yu feeñ ci jotaay bi. dafa am ñetti xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wasallam yu feeñ ci jotaay bi. sànq li tuur sama rangoñ loolu la. parce que yonente bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni. man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fala yurdi jaarahu mu waxaat ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu waxaat ni man kaana yuminu billahi wal yawmil axiri fal yukrim dayfahu kon ñetti xadis yooyu dafa daje ci jotaay bii ci rafetal gi ci teggin gi ci yéenante jàmm ji ci sutura gi ci waxalante mbaax dafa feeñ ci jotaay bii te jotaay bii Papa Thione Ballago Seck fa mu nekk xolam ma ngay xolam ma ngay sedd ruuxam ma ngay kawe te mi ngi bëgg te lu rafet la ma sa bëgg moom la bëgg donc loolu lépp dafa fente ci jotaay bi yal na yàlla fayal ñu jotaay bi famille Ndour gàcce nga la lii dafa rafet ay dorobe ngeen wallaay papa lii dafa rafet yow tam ñii dama a xam lii dafa rafet dafa jeex xamul nag seetaan bi ñooy juum yenn saa yi wallaay dëgg waaye a fréquenté xam nga ay ñoo àndal 40 ans bi mhm. nga xam ne mel barke bu saaga du wax lu ñaaw mas naa toog këram benn xale wax ba saaga te xamul maa ngi moo woo ko ne ko yow da nga dof kii toog day sa morom lu tax muy toog saaga bu sa bàyyi toogoon di nga saaga rôle la yuusu ni mu mel dafa catégorique boo ci yoon wallaay li ñu nuróole dafa bari lool lool lool hmm? lu ma xam la de dañ nuróole lu bari ci bañ hmm? jomba ñaaw hmm? bañ a doyadi bañ a ñàkk fayda am valeur teg sa bopp foo xam ne fii. te lay teg seen i naaw la itam. gis nga léegi daf ñu dénk euh, daf ñu dénk waali. dakaay mbay. waali neex naa boot. amul de amul euh, dé déggu déggu biir. gis nga fi baayam tegoon tànkam. xam na ko. daful mu ngi xool mu ngi gis. gis nga tey. dama toog di ko seetlu bi laa laata génn di régler sécurité yi pour ñu bàyyi nit ñi ak ñi mbokki coon na ñëpp dugg ku mu bokkal na ko dugg buñ tànn béer waaye dafa wóor soo ne ko bindal ma turu sama bàjjen yeeg sama ñëpp bu ci kenn am naqar waxal ak ñoom parce que dëj bi dafa déporté nag ñi ko seq am nañ ci yéene mm, mm. am nañ yéene bu baax mais lu ñëpp bokk la mm, mbokk ko ndax dafa am ñoo xam ñu ngi bëgg coon di jooy di yuuxu ñooñu doo leen toroxal noonu la demee moo tax kër ga fees mbedd ma fees al yalwaankat yi daan ñëw par àjjuma ñoo fa fees wallaay dëgg la ci coon lañ wallaay dëgg la wallaay dëgg ñu ci coon mi ngi ni daal en tout cas dund gaa ngi nii sama sama sama sama nijaay dund gi yomb na dund gi dafa yomb torop bu ñu reeree nañu xool kaamil alquran bi wala ñu xool xadis yi bañ na ko bani ba nit boo mënul wax ci moom lu rafet na nga noppi mm-hmm. fal yakkul xayran aw liyas muut soo munta wax lu rafet ci doomi aadama nga la noppil moo gën ndax lii lu jar a bàyyi xel la euh, suñu mag président Amadou Diagne Fojeka ah, xaritu xaritu Papa John moom it mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yónnee njaalam waaw euh, ba tey ligne bi. mu mhm. ngi tebee boor bu nekk ñëpp ngi bëgg a wax. waaw ñooñu ñëpp nit yoon euh, jamono ji ñu ngi ak euh, Assane njaay di rakk ci Papa Thione Balago Seck moom waroon na toog ni micro ma nga ne. waaye ñàkkul ne am na loo xam ne moo ko tënk ba ba ba ba ba ñëwul. waaye li naan cin lu mu xat-xat bokkale xorom Assane ñu ngi lay nuyu. di la jaale sa mag ju baax ji di la wax siggil ndigaale salaamaaleykum. baay ah, waaw magam baayam Cheikh mhm. ah Cheikh Cheikh maa ngi lay ziare eh, tey tamit di jégalu di jégalu maa ngi jégalu nag ah Cheikh maa ngi jégalu nag bu baax a baax eh, parce que dama waroon a ñëw foofu toog. dëgg la. waaye yàlla xam na ne sama tànk diis bilaay bëgg naa ko ko waaye mënuma woote bi may woote ni sax ñàkk pexe la rek waaye yàlla xam na ne bu ma sañoon damay teew foofu donc maa ngi la koy jaale li li ñu bokk di ko jaale waa seen TV gi yépp nag di ko commencé ci Bougane euh, ak sama doom euh, moom yi ak ba képp koo xam ne rek yaa ngi seen TV rek maa la koy jaal <laughs> Euh, d'abord di euh, rafetlu euh, sa plateau bi parce que su ma gisee sama sœur Abi macha allah gis sama rakk Ousmane mujje ci tafsir xayaat kooku nga xam ni moom moom rek bu toogoon foofu rek mën na laa wax fii ba suba fii ba bët set mhm. ci coon sekk te lépp lu mu la wax dëgg dëgg lay doon donc ma am nag ah, dëgg yàlla li may wax rek Euh, coon moom man pour ma wax ci moom day jafe mm-hmm. du mën a yomb mm-hmm. parce que maanaam fi mu jaar ak man la Ousmane moomu toog foofu mm-hmm. xam na ci lu bari parce que comme li la naa di wax naan euh, rakk ak ak papa maanaam moom euh, xam nga nit ki boo ko yaree ci bi muy bi doon lu ndaw a ndaw ba pare euh, nga jël ko jàngal ko métier jàngal ko métier ba nga xam ne lépp lu nekk ci moom yow yaa ko def kooku foo jaar buñ maanaam bu fekkee ne kooku nekkul confi copie conforme aussi dina am lu bari lu mu jël ci yow. te wax dëgg yàlla tey ñun ñun ñun famille bi ñun ci musique ñëpp kenn ku ci nekk yàlla sama borom dafa dogal ne boo demee ba am amul musique coon moo tax nga am ko. dëgg la donc kenn ku ci nekk. Euh, li nga xam ak li nga man moom moo ko def ci yow. Oh. donc damay wax ne coon moo def ci ñun ñëpp euh, li nga xam ne moo nekk ci ñun. Oh. waaye nag man sañ naa taxaw ne man li mu def ci man def ko ci kenn. dëgg la dëgg la dëgg la moomu toog te te looloo am sax. Ousmane moomu toog ma ne ko te looloo am sax. xam na li muy wax donc ba tax na euh, ndeysaan maa ngi fàttaliku gën naa fi nekk tout tànk ndeysaan con euh, euh, di woy ak ensemble euh, ensemble traditionnel bu ñu daan dem di joué ji sama papa Cheikh Seck daan ànd ak ñun. Mhm. léegi nag benn jour ñu way ñu dem di war a joué ji xombal xam nga Cheikh man xombal laa dëkk. Mhm. benn bis ñu war a joué ji bu ñu daan joué ji maanaam dañ daan jël ay rajo takk ko ci kaar wi. bu ko bu ko defee di woy ak xalam yi di publicité noonu leen def. wallaay. man daal dañuy ñëw ba dugg bay dugg xombo rek ndeysaan sama pap Socé yàlla na ko yàlla xale àjjana. amiin amiin daal ne eh, coon coon jël di commencé eh, rek bëgg a woy rek ne ko non non tey Assane Ndiaye mooy def publicité bi. Hmm. Cheikh Sarr loolu loolu moo doon sama njëkk a téye micro naan maa ngi jéem woy. loolu moo doon sama premier téye micro. Hmm. te yàlla sama borom mu dogal nag. ma jël ko nag def ko nag réussir. donc moom. man de xam naa xam naa xam naa bu baax li nga xam ne moom def na ko ci man dafa am nag àddina yoo xam ne. mën nañu ko wax ci kaw waaye am na loo xam ne kenn mënu ko wax ci kaw. maanaam da nga koy téye. tafsir xayaar moomu toog noonu. bari na lu mu xam lool. Mm-hmm. xam nga boo gisee sànq li may wax ma jël seede euh, def ko Ousmane. parce que tey plateau boobu Ousmane laa ko bokkal te lii may wax nii moom daf ko mën a seede moo tax ma jël ko moom pour mu doon sama seede donc damay wax ne nag ku ñëpp di jooyal waroo waroo jooy parce que euh, tey euh, ñun ñi nga xam ne sax ñun ñoo jege woon coon sax bokk ak moom ñun mënuñu woon sax jot ci moom ndax ndax àdduna bi mm-hmm. kon kañ Euh, dañu koy ñaanal yàlla rek yàlla bu ko cat jiitu. amiin amiin amiin xam nga tey Lamine Naar Lamine Naar mu ngi Italie mooy taawu coon moom lañ tuddee Lamine Naar moom toog. dëgg mm. tey maa ngi fàttaliku tey bi ngénte euh, Lamine Naar boobu donc man li nga xam ne euh, mën naa ko wax wax ko daal mooy. ñëpp daal ñàkk nañu Sénégal ñàkk nañu waaye man Assane Ndiaye de ñàkk naa. wallaay dëgg la wallaay dëgg xam naa ci lenn ah moo ñu yar ñun ñëpp de moo ñu jàngal ñun ñëpp de ma waaye man gëm naa ne am naa ci moom loo xam ne. Mhm. ah kenn am ko ci moom. ci lu ma wér nag ci lu ma leer. te bett naa koy. ba loolu du ma koy faral sax mu di wax. dafa ne ku ma gisatul ku ma gisatul Assane Ndiaye ngi nii. waaw waaw ñii ñëpp ñoo bokk ndey ak baay. mu ne sama rakk yaay ko jur waaye ku ma gisatul Assane Ndiaye ngi nii. Mhm. ba ah, waaw donc kon daal ci gàttal Cheikh. Mhm. li li li nga xam ne am na ba am mooy. waaw. waaw. Mhm. Cheikh. waaw Assane ñu lay déglu waaw. li nga xam ne moo moo am daal. Mm-hmm. mooy man damay ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi. Mm-hmm. Euh, euh, yàlla sama borom teg ci loxo. amiin yaa rabbal aalamiin amiin amiin maanaam euh, xam nga démb dama ñëw man dama am insomnie. Mm-hmm. dama am insomnie ba trois heures et demie du matin Cheikh ma nelawuma. doo ko mën. non non bi muy gaañu laa wax. waaw waaw dama am insomnie. sixième sens nelawuma yëg-yëg bi. ma ma fay sama téléphone ni naa jéem a nelaw. cinq heures trente minutes ma yeewu. ma yeewu julli naan kafe nekk ci sama téléphone. nekk ci sama téléphone ba ay booru huit heures. Mhm. ma fay sama téléphone tëdd. ndeke yow ndeke boobu temps man loolu laa yëg. wallaay yëg nga ko yëg nga ko. yàlla xam na ko man dañ maa woo rek sama tànk ma jóg. sama tànk dam oh là nag gëm mu ko de. Hmm. mais bi ma taalee sama téléphone bi ma sama doom jooju Mariasin Fat Bintu woowee damaa gis numéro rek ma ne kon allahu akbar mais li ma jooyloo man mooy dama ñëw ci morgue bi fekk waali toog ma ñëw foog ne sax man maa koy defal mu ne ma ah papa sant yàlla de waaye day fi mu nekk nag day papa yéen fi def. baat boobu nag touché ma lool nag baat boobu touché ma lool wax dëgg yàlla ah, ma di ko ñaanal nag moom ak ay rakam ak magam Lamine Naar ak képp koo xam ne rek coon fekk bàyyi na ko fi yàlla sama borom jël loxoom teg ko ci. amiin amiin amiin moom mi nga xam ne nag moom la yàlla teg léegi affaire bi maanaam mu yore flambeau bi. Hmm. man de gëm naa ne que gëm naa ne que dina oyof. Mhm. parce que bu ñu jëlee coon balaago fekk teg fële à côté. Mm. waali moom ci boppam moom mooy ñaanal boppam. loolu toujours ko. Mhm. dafa am loo xam ne mënuloo koy def mukk ba pare di am safar. ndeysaan moom waali moom mooy ñaanal boppam. xanaa kañ dañ koy dolli maanaam barke bi woon ci baay bi mu wàcc ci moom ci barke Sidna Muhammad ah, yàlla dëgëral ko. te man xam naa ne. Mhm. Euh, gëm naa ne baayam day ak amoon fit amoon na fit bëggul woon ku ko yëpp. Mhm. te aussi daawul daw. Mhm. mukk jamais. kon nag bon yàlla na ko sama borom yàlla defal euh, jàmm moom ak ay rakam ak bépp njaboot boo xam ne coon bàyyi na ko fi ci barke Sidna Mohamed man wax moom Cheikh mënuma koo bari waaye daal loo ci mën a dégg daal Sénégal ñàkk na àddina ñàkk na waaye Assane ñàkk na daal kaddu yi rafet na jërëjëf jërëjëf Assane Ndiaye kontaan nañu bu baax a baax kaddu yi set na sell na rafet na te dëggu na yaakaar naa ni bokk na ci artistes yi nga xam ni euh, ci seenam la Papa Balago Seck mujj yëg donc ñu ngi ko koy jaalewaat waaye di ko jaale tamit El Hadji Lamine Ngom Bambilor mi ngi yónnee njaalam di ko jaale tamit docteur Serigne sama Ndiaye mi nekk ak ñun fii ci kër gi waaye tamit di ko jaale ki nga xam ne moo di Sidat Thioune di sama mag ci RFM eh, di ko jaale tamit ñoom ñëpp ngi yónnee seen i njaal Lamine Thiam champion Lamine Lamine Lamine champion. moom it Gambie mi ngi yónnee njaalam. ki nga xam ne moo di suñu mag Fallou Dieng mi ngi yónnee tamit njaalam. <laughs> wallaay tey it